tabibi qaribun hal siqaamiya tas ginnaaw bi ñu la jaalee li ñu bokk ñu bëggoon xam tey sa teewaay ci dëj bi waaw gannaaw bi ñu sant yàlla bu baax ñu ngi jur Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di gërëm suñu ñaari waajur tey nag ñun ñëpp naqar lañu fi ñëwee ndax man euh, tey ki génn àdduna mën naa ne moo ma yar muy Ami Jaw wax dëgg yàlla sama nijaay yar jël ko mu yar ma ci kër gi keroog bu muy sëy si ah, ñi yenn woon valise ci la bokk wax dëgg yàlla 18 ans mu def ci sunu kër gi fekkee fi naqar fekkee fi bànneex lii nag am nañu mbetteel am nañu tristesse am nañ lu nu bettu trop parce que defe nañ ne kuy sëy ci kër ba am fa lu mat juróomi doom wala lu ko ëpp ñaan nga yàlla bés toog sa njaboot fay la ndax sonn na sunu kër gi sonnal na Cheikh Anta miy jëkkëram sonnal nañu ñun ñi nga xamante ne ay jarbaatu Cheikh Anta lañ lu nekk mu daj ko fi ma fekke donc moom tey su génne àdduna naqar bi ma am tey mënu ma koo exprimer wax dëgg yàlla dama koy ñaanal rek yàlla yërëm ko te xaare ko aljana te xam naa ne mi ngi aljana. kat mooy Amy Dia parce que gis nañu ni témoignage bi euh, yëpp benn la ko dékk micro benn kàddu la lay wax euh, kan mooy Amy Dia. waa Amy Dia dafa nekkoon jigéenu muñkat nekk jigéenu sëykat nekk jigéenu jàmbaar kenn mënu xam lu am ak lu mu ñàkk. mu muñal jëkkëram lu kenn dul muñal jëkkëram mu suturaal jëkkëram lu kenn dul suturaal jëkkëram man nag li ma ci fekkee dafa bari donc mën naa wax lu bari ci moom ami nitu aljana la xam naa ne dafa am mission bu mu waroon accomplir ba mu matee rek yàlla daf ko jël ndax koo xamante ne nii am na sutura Ami Jaw bu ñëwee da ngay day toog ba mu rafet day toog ba mu bari jox ñu ñu lekk lu nekk mu daj ko fi kooku daal sama xol dafa fees daal vraiment. lan ngay fàttaliku ci moom loo xamante ni doo ko fàtte parce que gis nañu ni ku la jegale woon et aussi ci sa wax daf siy feeñ lan ngay fàttaliku ci moom loo xam ne anecdote. non ami chaque jour ci conseiller ma laa daan dëkk. Pape defeel nii waxeel ni jëndal kër dugal sa yaay dimbali sa yaay bëggoon naa na tey mu fekkee waaw bëggoon naa tey mu fekkee mais nag àdduna saa su ne rek yàlla kenn du ko jóg ma waaw. kenn du xëjoo moom daal mënuma wax ci Ami Diop parce que dafa sori ci man ah. محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عكفت على باب النبي محمد ومن رام دري فهو أجدى وأنفع بمكة بالمصاع بخيف ومشعر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 voilà ba tey mbokk internet yi ñi ngi fi nga xamante ni rek moom moo di euh, dëj Ami jaw bi nekk soxna si Cheikh Anta ñu toog ak ki nga xamante ni ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay soxna si ñu ngi lay nuyu ginnaaw bi ñu la jaalee li ñu bokk. maa ngi lay fay waa Ami de bokk ndey ak baay mën naa ne sama yaay ñun ñaar rek la am ci jigéen moom moo nàmp jox ma ma nàmp maak sama seex bu góor bee nga jëloon sànq muy kenn nag ci man ndax ñàkk naa loo xam ne dootuma ko amati ndax dama ñàkk sama mag bu góor. mu tolloog ñetti at ma teg ci sama mag bu jigéen muy sama xarit di sama seex di sama lépp gore lool sëy na ba dee waaye ñàkk naa loo xam ne soxna si mën naa ne li jóge ci man dootul ñëwaat ndax dénkaane dafa foor ba mu feebaree ci man la nekk nekkaat ci sama beneen doomu ndey ba muy dem man la bàyyeel doomam mi Papis njaay mi ñu tuddee mi ñu tuddee waale ne ma sama sama raq mu ne ma mu ne ma dénk naa la sama doom ma ne ko dinaa ko téye ba nga ñëwaat mu gore lool mu tas sama yaakaar nag ndax waxuma woon lii waxuma woon lii ami damaa nax waxuma woon lii dana ma seex bi ma ne ma maa ngi dem maa ngi ñëw faju ji ñëwaat ci sama sëy ma ne ko waaw mu ne ma xale baa ngi noonu dénk naa la ko sa doom la kontaan naa ci yow lool yàlla yàlla kontaan ci yow ndax ñoo bokk ndey ak ak baay waaw waxee euh, dénk naa la njaboot gi sa xel ñaawul que ni ami daf lay tàgg. waa xam nga nit ku nekk da ngay am njott bu rafet ndax njott bu rafet dafa am solo waaye ku xool sama mag bu njëkk nga xool ko léegi xam ne changé na waaye yàlla xam nga moo xam. feebaree tiim nga ko lan nga gis ak lan nga yëg euh, jour boobu. waaw ba mu feebaree nag mën naa ne ba ko feebar bi gënee sonal tiimuma ko waaye. ba muy dem ñun ñaar ñoo nekkoon ñooy fanaan di waxtaan ba bët set muy xam nga rek waxtaan waxtaanu àdduna fu ma xam nag yóbbu naa ko fa sama yaay it dafa feebar waaye dafa fàtte feebaram ndax dafa metti nga am ñaar ñu jigéen ami moo doon taawam xam nga fu mu xam yóbbu na ko waa def def na ma problème ndaxte timis la ma woo ne ma seexu yàlla bi dégg naa ba ma demee ba léegi lekkoo ma ne ko ah miyaa maa ngi lekk de mu ne ma appel vidéo bi leerul damaa bëgg nga génn ba ci biti ma gis la ma ñaanal ko mu ne ma ana papis ma ne ko papis a ni toog mu ne papis Ndiaye kañ ngay ñëw yaay papis ne ko yaay kañ ngay ñëw xale la ñaari atam sax matagul papis ne ko mu ne ko léegi ma ñëw ñu coupé mu toogaat ba ci yàgg mu woowal ma téléphone ne ma awa ma ne ko ah boobu affaire baa ngi koy sonal mu ne ma añ nga ma ne ko añ naa kay mu ne ma awa sama xol dafa sedd sew yow yàlla na yàlla xolam sedd ci yow ndax ni nga téyee sama doom foogoon naa ne ko fi bàyyee dina jooy waaye nag aw ma leen lu ma ci réccu aw ma lu ma ciy tiit ndax yow papis yaa ko feral yow la xam waaye papis dénk naa la samay doom ma ne ko ah miyaa loolu moom diis na di ban doom nga ma dénk benn doom nga ma dénk mii papis mu ne ma samay doom laa la dénk mu xam ne ku xam ne mënatuñoo am mënatul am maanaam sama xaaj moo dem ndax li gën a riis si man moo dem waaye nag ñoo ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm ma pare nag ñëw ci jëkkëram muy seex Anta Ndiaye. ci borom këram ami lan moo ko daloon. waa xam nga rek feebaru jamono ji ndax àdduna bi dafa jeex ba pare dañoo nekk ci mujjub jamono ku yebu rek da ngay tiit sa bopp xam nga léeg-léeg nga dis nit ñu ne daraa koy metti lu lu lu lu kii daal ñu ne daraa koy metti rek yàlla jël ko waaye ami feebar bi mën naa ne yàgg naa ak moom ndax ñetti at a ngi nii muy dem ak moom. ndax ba mu ko njëkkee daaneel ci la ci la feral doomam ma ne ko bàyyi ma feral ko ñetti at moo ngi dem ak moom muy daanoo ko jug di tëdd ko jug ba tey mu yóbbu ko amoon na njott bu rafet nag ne dina wér waa sama jëkkër jooju nag li may wax ci moom sama xol laa ko tibbee Njaay Seex Anta du du sama jëkkër sama sama mag la ndax moom nee naa ko seex ma ne ko ah ma ne ko yow su ma sañoon da ngay toog ba màggandatoo ak sa ak sa jabar bésu tey bii moo doon Souleymane njaay di wàccee jabar di ko dugal ci néegu yaayam waaye lii la yàlla nam kenn mënu ci dara Cheikh Anta njaay ku gore la ndax ànd dafa neex waaye ànd ak gor moo neex xam nga ànd dafa neex waaye ànd ak gor dafa jafe waaye seex dafa gore Papis Fumé doon wax sànq Ami Jaw moo ko yar ba muy xale bu ndaw am fukki fukki at ak juróom-ñaar la sëy ci kër gi muñ fi lu nekk nag barki mu xamet jëkkëram gore lool xaalis bu taxoon ami du dem kon waat naa ci yàlla ne ami du dem ndax seex Anta Ndiaye dafa bëgg sama mag bu jigéen ba képp ku takk ci sama mag bëgg na la Cheikh Anta moog samay mag yi boo leen xoolee dañuy mel ni ay moroom mu ñàkk lu xam ne nag dootu ko amati barki Seexul Xaddim ñàkk na lu xam ne dootul amati waaye xam nga lan laa koy dénk na na dal te xam ne yéene bu mu amoon ci ami ñi ñi dinañ ko mottale ci doomam man ñàkku ma dara ndax su ma gëstoo ji Cheikh Anta Ndiaye mii muy sama taawu yaay ñàkku ma dara jooyu ma dara moo tax tey samay rongoñ dafay fer maa ngi koy ñaanal nag fee mu tëdd yàlla na ko yàlla xaare àjjana malaaka yërmaande teeru ko ndax liggéey na ko ndax bu dee ñaanu ñaanu jëkkër mooy tax nit dem àjjana mën naa ne ami texe na ndax jëkkëram da koo ñaanal ndax dafa tarbiwu fukki at ak juróom ñaar ku ko muñ nit muy metti di neex nga toog na seex rek ca pantere ba ba tey mu nekk fii te jigéeduwul jëkkëram nag yàlla na ko yàlla xare na Cheikh Anta Ndiaye mi fi des yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wër gi yaram ba doomam yi toog a toog a toog ba màgg a màgg màgg màgg ba yar ko man Cheikh Anta dama ko bëgg lool ndax mooy sama taaw yaay moom rek laa am soxna si jërëjëf yàlla na fi yàgg yoo tamit